Dakar TV di am ah. plaisir di euh, participer si seen émission jërëjëf waxtaan bi li ko laal mooy grand rassemblement bu quoi bu F24 déjà est que li ngeen gis démb tiitalu leen sëñ Fall <laughs> mënuñu tiital parce que lañu ñu gis démb ci pëccoxoo la mujjee ci saagante ndey la mujjee ak dóorante kurpañ malheureusement parce que aussi euh, xam nga copier M23 moom yombul parce que M23 mosul am xeex suñu bii yéen mosul doo am dóorante kurpañ suñu biir parce que ay personnes yu responsable ay leaders yu charismatique yu responsable ñoo ko séqoon donc aujourd'hui euh, F24 montré na ses limites parce que mënuñu mobiliser mënuñu encadrer la la la la mobilisation ñu maîtriser la foule parce que aussi euh, suñ demee ba manifestation bu mel noonu ñëpp naan mobilisation bi c'était une mobilisation forte mmh. mu mujjee ci xiiro ak ngaayoo ak doranti kurpañ mooy ñoom ñu bokkuñu ndey bokkuñu baay parce que ñu benn kàddu malheureusement loolu mooy opposition bu Sénégal loolu mooy wane ni opposition Sénégal opposition bu Sénégal dara taxu leen jóg lu dul seen intérêt bopp parce que li nga xam ni moom la ñu wane ay taar la yoo existé au sein de Yewwi Askan bi ak ñi ko composé yëpp parce que ñoo xamante ni suñu àndee suñu taxawee ci benn barab rek balaa ñuy ma gën a rek ñu saagante day dóorante ay kurbañ yu ah, xonte xasante si fa loolu amul fa moom mais dóorante kurbañ am na fa dóorante je vous dis que dóorante kurbañ am na fa ñenn ñi di wane ji di arrêté ay limite ci seen biir ci biir ay vidéo yoo xamante ni ci TikTok foog nga koy jëlee ñii di accuser ñenn ñi di accuser ñenn ñi de violeur ñenn ñi di accuser ñenn ñi de leneen loolu mooy wane ni ñoom ànduñu bokk ñu ndey bokk baay. loolu mais ndaje mi population bi fa teewoon démb loolu daf ngeen ci jàngat bi ci mais xam nga euh, population ba fa teewoon démb. c'est une mobilisation nationale dañ leen di féliciter ci mobilisation bi mais la désorganisation qui existe dafa xam loolu tamit dañ koy wax nag sëñ bi la désorganisation qui existe loolu dañ koy wax gis nga nag su nekkoon mobilisation rek rek rek rek rek ak population bu taxaw Abdoulaye Wade du daanu Abdoulaye du wàcc parce que Abdoulaye Wade pour répondre à notre mobilisation du M23 avait appelé pour dire qu'il y avait 3 millions de personnes présentes dans une manifestation. mais contexte attention sur la mobilisation des personnes attention dama ne ñoo xamante ni mënuñu ànd. et dans leur discours sax da ngay dégg leaders yi ñuy ñuy ñuy ñuy clashante seen biir te ku ci nekk ci ñoom yaa ngi def yaa ngi jéem a charmer une partie de la de de de la foule parce que yaakaar jàpp nañ ni ñoom il faut ñu taxawee taxawaay boobu pour am électorat Ousmane parce que xam nañ ni Ousmane Sonko du dem élection un Malick Gakou qui se lève ay ay toog nga taxaw ne ñu ci jaloo mais yaa ngi ñàkkal fayda keneen. Hmm. mais sëñ Fall sëñ Fall est-ce que quand même yéen bu ngeen di seetaan li du ngeen am regret parce que en 2011 gisoon nañu président de la République mu teew ci même ndaje mi di doon xeex wàllum question troisième mandat te également ñu gis cette forte mobilisation également ñu jëmaat ci wàllum question euh, troisième mandat est-ce que quand même loolu du delloo gannaaw suñu démocratie. te président de la moo ko wax man a place de l'humiliste parce que xam nañ ni pour gagner élection sénégalais yi ñooy voté du mbooloo mi nekk ci place de l'Obélisque ñooy fal nit des fal nit ñi ñu ngi ci biir kër yi toog du ñu dem manifestation du ñu dem xiiro sànni xeer du ñu dem mbumbaay ñiy fal nit ñi les électeurs sont dans les maisons et dans les contrées les plus reculées de ce pays là ñun on a dit on va aller vers les populations pour fexe ba li ñu mbébétoon du am te on l'a réussi nit ki su wóoloo boppam xam li mu yor su nekkee ñoom ñoo yor majorité bi waaye sëñ bi ils ont l'habitude de dire force restera au peuple oui force restera au peuple c'est au peuple de décider au soir du 25 février 2024 qui sera président de la République du Sénégal mais c'est pas à une personne parce que le peuple ne leur appartient ah, pas démb nag démb lu ay pa ay maire gis nga sax image ay pa ay maire yu téye ay ay photo sëñ bi nous sommes sept millions d'électeurs il y avait pas deux cent mille électeurs sur la place où sont les six millions huit cent les six millions huit cent mille électeurs autres anañu où sont les six millions huit cent mille électeurs autres nous nous avons besoin de ces six millions Macky Sall aura les six millions huit cent mille électeurs autres attention hein élection électeur moo koy gagné c'est pas la mobilisation c'est pas la foule et l'élection se gagne à l'intérieur du Sénégal c'est pas à travers des manifestations autres que ça se gagne faut qu'on politique nag comme ni ko Barthélémy Dieng di waxee science de la science c'est de euh, l'intelligence c'est une réflexion wax lu ne en jeu non non non mais li mu wax c'est une vérité politique science la c'est de la réflexion c'est une stratégie la c'est pas dans dans la dans les discours de bat en guerre mun nga weddi ni politique du science politique c' est une science qu'il faut apprendre. mais gis nañ seen ay xaajante ay sees di doorante di waxante lu moom yàgg ci politique Sëñ Fall. mais mais di doorante ay non je je ne refuse pas ça mais pourtant ba ñuy doorante ay sees di doorante kurpañ suñu biir di saagante c' est télé qui ont qui coupé leur signal pour ne pas montrer à la population ce qui se passe à la place de l'Obélisque l'ont montré <laughs> waaw lu taal dëkk bi ñoom ñu wane ko Sénégalais yëpp di ko wan lu tax su waa yeewi opposition di dóorante ko bañ seen biir duñ ko wane pourquoi il faut qu'on arrête ce comportement là aujourd'hui aucune presse la majeure partie de la presse n'ont pas n'ont fait état de ce qui s'est passé réellement ah, dans si, mais fekkee leen nga presse bi également ils ont ils ont revenu par rapport ak li xew ak yooxu bu ñu yooxu Khalifa Sall ak l'honorable député Pape Djibril bi est-ce que tu sais communication bi àggul. ah yàgg na kay fekkee man maa ngi foon de. non dama ne àggul huée yeeg dóorante kurbañ moo tax mu jeex <laughs> et pourtant avec nous à M23 da daan dem ba jeex tak les leaders étaient responsables gis nga un leader quelqu'un qui aspire à être un président de la République doit être des hommes d'État un homme d'État nag c'est dans le comportement un homme d'État c'est dans la déclaration un homme d'État si ci ngay taxawaay nous avons été à l'opposition comme eux nous-mêmes nous n'avons jamais eu ces comportements-là. nous avons été dans l'opposition comme eux nous avons été dans la M23 nee la copier M23 yomb na mais mel ni moom jafe na le M23 était un rassemblement. hommes responsables dignes de leaders politiques et d'hommes d'État pour régler la question de la démocratie de ce pays. Mhm. là mmh. Les gens qui composaient la M23 étaient des, des gens responsables. Mais malheureusement, on a vu aujourd'hui. J'ai ouais, nous sommes Yanamar n'a de la scène par rapport au M23. Mohamed Forum civil également. Ils n'ont jamais été une référence. Je vais dire, pour moi, je parle, ça me tourne là, waaw ils n'ont jamais été des références pour moi. pourtant ils ont porté le combat nekk sama référence gis mosuma leen gëm. tel combat il faut qu'on arrête c'est le peuple sénégalais ce sont les douze millions dans le temps qui ont porté le combat de la population sénégalaise. ce n'est pas un groupuscule de personnes. moo tax ma ne la élection li koy gagné loolu la président de la comprendre bi mu jëlee réew mu woo leen loolu moom a niyee Sëñ Fall. mu woo kan. woo Yann je vais te donner une information en direct sur votre plateau. Okay, le président n'a jamais fait appel au Yanamar. <laughs> La première audience que Yanamar l'a décrochée, c'était à Mermoz, à 3. Allô? <laughs> voilà, ñu ngi ñu ngi xaw a jégalu réseau. Allez-y, allez-y, Allez-y. le chef de l'État c'était sur demande de Sadel Baro man maa fekk këram fi mu dëkkoon maa ko fa fekk toog ak moom waxtaan ak moom nuit dama tout ce qu'il faisait en 2012 sama loxo la doon jaar jóge ci kaw ñëw ci man dem ci ñoom il faut que ces gens là arrêtent il faut qu'ils arrêtent nous sommes des hommes d'État nag nous sommes pas tenus de tout dire nous voulons être comme un subalternodien mourir avec les secrets d'État mais nag il faut am réew suñ ko dañuy xool ay loxo yu set yu sell ñu bañ a nekk ci digg xam nga nag lu ma ci jaaxal dañoo peuple dañoo confiné peuple bi Ousmane Sonko génn dem sud tey ñoom nee nañ peuple bee génn Ousmane confiné wu ci bois sacré yi di làqatu jërëjëf merci merci merci beaucoup waaye il pas vous mhm. plaisir. Hmm. voilà ñu ngi euh, jégalu euh, xam naa doo ñàkk dinañu jëlaat wéyal ak moom mais comme que rek ñu liggéey également hmm. équilibré da ci bokk. Hmm. da ci baaxee ñu jox leen kàddu ma bàyyi la nga wéyal soxna soxna Awa. ok. Euh,